jërë ngeen jëf mbokk yi ci rafetlu ak ànd beeg télévision Futur Média daleen ak jàmm ci xibaaru digg bëccëg gi li ci gën a fës te ñu nam ko jukki dina bokk rek ci ah, ñi nga xam ne ñoom ñooy di ay ñooñ yu ñoo lànk ñoo bañ yi nga xam ne rek daan nañ leen di bàyyi ñu noyyi ngelaw lu féex ginnaaw nag lu tollook ñaari fan ñu ngi leen tëjoon ci li nga xam ne moom moo di ah, kaso bi nañ dem itam ba fa nga xam ne rek moom moo di ca Londres benn soxna moom mooy sàkku rek njiitum réew mi mu daal di bàyyi Guy Marius Sagna eh, ci ab jano boo xamante ni mu ngi ko doon def eh, ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di ay militant ak ay militante wam nañ wax itam eh, ci juróom ñaari poñ yi nga xam ne rek daal dinañ koy yëkkati ci décret bi nga xam ne njiitum réew bu Sénégal daal dina koy jagleel li nga xam ne moom moo di mburu bi nañu koy defaree fa muy jaar ak fépp foo xamante ni rek dañ ko fay jaay li nga xam ne moom moo di wàllu cet gi nag doon na loo xamante ni daal nañ koy jëmmal ci wàllu yi nañ wax itam ci leneen loo xamante ni daal nay soxal mbirum administration ana naka la ñuy def ngir rek lu ni mel ñu daal di koy gën a moderniser nañ ci teewlu ki nga xam ne moom moo di euh, Maguette Sène mbokk yi li nga xam ne moom moo di revue de presse mooy daal di buur yële jotaayu xibaar bu ngeen taaxiloo tuuti ñu daal di faram-fàccee. salaamaaleykum mbokk téléspectateur yu télévision Futur Média ni leen ko junjee woon ci bopp bi noonu lañ koy euh, dooree ñi nga xam ne nag ñoom ñoo di waa ñoo lànk ñoo bañ ñi nga xam ne xañoon nañ leen ngelalu féex ci samedi ak léegi nag daal nañ leen di euh, bàyyi ki nga xam ne euh, moom moo di seen ab avocat di maître ci Ba daal na yëy yàbbi ci wàll wi naka noonu itam mi ngi ñuy xamal ana lan moo tax ñi nga xam ne ñoom ñoo di ay client moom nanguñu woon xaatim li nga xam ne rek moom moo di PV bi dañ ci teewlu teewlu suñu ndaw yi nga xam ne ñoo nekk ci rajo Futur Média doon ko teewlu. bépp ku yeewu Sénégal donc je pense que loolu boo ci jàppee nit. violé nga constitution yi violé nga loi yi ko mayel mu def loolu parce que loolu citoyen bu nekk am nga droit def loolu donc honnêtement bu dee jàpp nañ leen muy la troisième fois parce que ñu njëkkoon jàpp groupe bu fanweer fanweer ak juróom-ñett yi nii la woon groupe bu fukk ak juróom jàppoon fu juróom-ñeent nii la woon ak ñoom ñuy jàpp leen bu leen bàyyee bon honnêtement du du lu bees quoi du li nga xam ne dañ ko war a ndamoo wala parce que loolu hypocrisie la tudde au contraire dañ koy ñaawlu dañu war a bàyyi di jàpp nit nii ñoom wax nañ leen woon nañ leen ko bu baax parce que bi ñu leen jàppee premier groupe bi ñu jàppoon le 20 décembre ba léegi musuñu tontu ci paie procès verbal musuñu signé procès verbal leen ne yéen da ngeen def lu leen neex ñun dem dañuy def lu leen neex ñun gëmatuñu leen parce que gisuñu suñu bopp ci façon bi ngeen ñu ngay attee donc loolu bu ñu euh, bi leen chef à ñu ngi solution di leen bàyyi li gën a mooy ñu bàyyi leen arrêté déjà waaw su ñoom seen détermination gisuma lu ko mën arrêté parce que ci combat bi ñu nekk dañu tooñuñu kenn ñoom la ñu tooñ en tant que citoyen ñuy défendre seen bopp di défendre askan bi je pense ñooñu bu leen mënul honoré jox leen médaille leen bàyyi ñu yëngu parce que tooñuñu kenn indiwuñu coup d'état jaxasewuñu institution yi il faut honnêtement que ñu revenir au ñu di ko jaajëfal bu doonoon maître Khourey euh, si ba ñi nga xam ne itam euh, ñoom ñoo bokk ci loole nag te ñu tolloon ci fukk ak juróom ci ay doomu aadama nga xam ne rek euh, ñu ngi doon wax ci li nga xam ne rek moom moo di yokk courant bi ñoom ñooñu itam ñooy amal ab déclaration ñaari waxtu bu jotee foofee nga xam ne moom moo di ca siège bu Y'en ñu dem ca Londres daal di rek wax ci soxna bi nga xam ne rek moom moo rek këfoon kàddu ga bi njiitum réew mi doon wax ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di ay militant am euh, ci li nga xam ne rek moom moo di doxalinu euh, parti soxna soose nag mu mel ni waxam googee daawul euh, egg ndax rek dañ ko daal di génne li nga xam ne moom moo di boobule sàll ñu teewlu ko. ci ñu wax euh, euh, ci leneen ñu dem foofee nga xam ne moom moo di euh, ca muur ni ki démb nag commissariat central bi nag moom moom moo daal di rek jàpp ci lu tolloog benn tonne ak li nga xam ne moom moo di cent cinquante kilogrammes yu yàmba ki nga xam ne nag moom moo doon rek transport te lii nu mel nag mi ngi wuyo ci turu Modou Ndong mu ngi juddu ci rek fukki fan ak ñaar ci weeru novembre atum 1987 ca kër Lamine Sakho loxo moom moomee sax mi ngi ko doon def ak ñaari naataangoom ñoom ñooñee sax nag dañoo mujj daw waaye mu mel ni eh, ñi nga xam ne rek ñoom ñoo di way takk der bi ya ñu ngi wëyal li nga xam ne rek eh, moom moo di eh, seet kooke ci tënk rek mën nañ jàpp ne lu tolloog benn tonne ak 150 kilogramme bu chanvre indien rek la ñu rek daal di toppee kooke ñu dem yi euh, nga xam ne moom moo di euh, ca Thiès euh, forum social bu Thiès nag moom moo doon amal ab ndaje daal di addu ci lépp lu soxal wàllu jàmm naka noonu itam mu daal di rek yónnee ay ndaw képp koo xamante ni rek da di doom ci xalifa généraux yi nga xam ne rek ñoom ñoo nekk fii ci réew bu Sénégal nga daal di teewee boobule waxtaan liñ ci jublu moom moo di ñi nga xam ne ñoom ñoo seq langue politique bi ba ci sax ñi nga xam ne ñoom ñoo di syndicat yi ñu gën a am ak dal li nga xam ne moom moo di jàmm gën law fii ci réew réew bu ñu teewlu reportage bu Cheikh Anta Diop ak say latir moom moo soxal tey jii de ay imam ulema ak ñi nga xamante ne nag ñi ngi jógee ci kër kilifa diine yi ñi ngi fii ci diwaanu Thiès di waxtaanee lu jëm ci wàllu woowee ba tax na nag nee nañ daal ñoom li nga xamante ne daal moom la ñu bëgg ci réew mi moom mooy jàmm ñëpp nekk benn ay yi nga xamante ne ñu koy nemmeeku ci yeneen réew ñuy wër mu bañ a dugg fii ci Sénégal Sénégal laay waxal mooy ne nañ moytu fitna ndax fitna day ne la yàlla rëbb na ko yee te gis na Sénégal yi sax amuñu naatiru fitna ndax gis ngeen léeg-léeg sax dara jóg ba ñëpp tiit mais lu koy fay sa doo ko xam te la koy fay mooy lan mooy ay kilifa différence Sénégal ak ak réew yi ñuy wër wala réew yi ci àdduna bi mooy dañoo nangu kilifteef te di boo demee Gambie rek amul ay xalif général boo demee Mali amu fa boo demee benn amu fa boo demee feneen amu fa donc ñun tënku gi ñu tënku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 ñu wax euh, ci leneen euh, muy euh, décret bi nga xam ne rek njiitum réew bu Sénégal daal na koy jël lu tolloog nag juróom-ñaari ponk moom moo gën a fës ci wàllu woowee li nga xam ne itam moom moo di wàllu cet gi daañu ci def ab taxaw seetlu mu mel ni rek ñi nga xam ne ñoom ñooy yëngu ci wàllu mburu mi ni ñu koy defaree ba ci sax naka la ñuy def ba daal di koy jaay war nañu dagg seeni ay we daal di wat seen i ay karaw ak yeneen yu ni xeetoo Alassane Ba ci tënk. ci xayma toll na ci ñaar fukk ak ñetti article yi nga xam ne ñu ngi ci décret bi nga xam ne nag dafay andi coppite ci secteur boulangerie ak pâtisserie bu fekkente ne nag appliqué nañ ko ni mu waree lii di qualité jëm ci wàllu mburu mi ak niñ koy jaayee dana soppeeku ñi nga xamante ni itam bëgg nañu wéy ci secteur boobu décret bi mu ngi koy indiqué boo xoolee ci article ñeenteel bi nee na boulangerie bu ne bi nga xamante ni mu ngi dox ci jamono ji war na am nag déclaration bi ñu war a amal ca service yi nga xamante ni ñoo ŋànk secteur bi muy commerce intérieur lu jëm nag ci fii nga xamante ni moom la ñuy tabax lii di boulangerie yi loolu itam war nañ ko xoolaat boo xoolee ci chapitre 4 bi lañ ko wax wante itam lu jëm ci wàllum cet gi par exemple boo xoolee article 9 bi mu ngi wax ne képp ki nga xam ne nag dangay liggéey ci wàllu mburu war nga sol seen genre mbaxane yooyu ñu koy tuddee toog wante itam li di blouse te eh, saa su ne da nga war a dagg say wee wante itam waroo bàyyi sa karaw gi ba mu sëq da nga ko war a wat ba mu yem visite médicale yi maanaam di dem di saytu sa wér-gu-yaram jamono ji ne danga ko war a amal saa yi nga xamante ne nag war nga tàmbali sa liggéey war nga raxas say loxo wala sax boo jógee ci wana yi itam war nga raxas say loxo lu jëm nag ci njaay mi am na ay bërëb yi nga xamante ni moom la ñu wax foofu la war a amee ay kiosque war na am réseau de distribution boulanger yi wala sax feneen fi nga xamante ni ay surface la yoo xam ne ah, dañu fay jaayee fekk nag dañu aménager ay bërëb yu nga xamante ni dafa set te ñu fay def mburu mi di ko jaay article 10 bi moo ko wax bu fekkente ni nag article onze bi nee na bërëb yi la ñuy jaay mburu jaaykat yi nga xam ne ay table la ñu yor wala sax boutique yi nga xam ne amul ay espace yu ñu aménagé ak ki nga xam ne dañ ko prévoir rek teg ko fa ngir muy jaay mburu ak fii nga xamante ni ay restaurant la ñu nekk ci mbedd yi waruñu fa jaay ay mburu conseil national bu consommation ak conseil régionaux yu consommation yi seen lënkaloo nag ak organisme interprofessionnel yi nga xam ne ñooy yëngu ci wàllum boulangerie ñoom nag ñooy fexe ba fixer poids mburu mi wante itam njëgam ay daan nag mun na tegu ci ñi nga xam ne nag ñoom tënkuwuñu ci li décret bi wax condition application yi nag arrêté ministre mi yor wàllum njënd meeg njaay mi moo koy fixé. ñu di ko jaajëfal bu baax a baax moom alxasan ci wàllu mburu moomee sax la ñuy euh, desandi suñu ndaw foofee ca ndar géej nag euh, daal ni nay janoo ak ñi nga xam ne rek ñoom ñooy yëngu ci wàll wi ñu daal di indi ay leeral euh, ci li nga xam ne rek moom moo tënk boobu la décret Ousseynou Diop ak Abib Seck ak décret bi nga xamante ni njiitu réew mi daan koy jël ngir lu jëm ci wàllu jaay ba ñuy jaay li di mburu mi ñu gën ko saytu acteurs yi nag daan nañ cee yëkkati seen i xalaat ñu ci bare di ko rafetlu waaw fédération bu nekk ndar kay loolu combat boobu da ko porté woon wax dëgg yàlla président Dour Sène Diop mi nga xam ne mooy président bi nekk ci wàllu ndar moom loolu da ko porté woon ñun ñëpp dañ ko porté woon wax ni ñun set moom mooy nga xam ne moom ni topp ndogal yu ni a nemmeeku ci ñi nga yi dañ ci a dugal seen i potoo liggéey bi rek lu ci war lépp ñu def ko kenn ku nekk na nga gëm li nga gëm te xool ñi nga xam ne ñoo tax nga koy liggéey. tuuru ku kenn du ko nekkul produit boo xam dañ koy raxas dafa nekk loo xam lu set la war a doon loo xam ne wax dëgg yàlla nit ñi dañ koy jëfandikoo bu fekkee nag produit boo xam kenn du ko raxas bërëb yi dañu war a set euh, fi fuur dafa war a set bagage yi wax dëgg yàlla fépp war a set ñi koy liggéey aussi wax dëgg yàlla dañu war a ànd ak set. ci pâtisserie yi itam lu ni mel lañ fa gis njaay ma ma ngay dox ñoom it ñu ngi rafetlu bi leen dogal. danger yu énorme que biir lu ñu xas dugg si biir moom jeex na donc dafa war a set sell balaa nga koy consommer. waruñu woon xaar sax président di gën a décret pour wax nit ñi nañu set. nit si boppam yow yaa war bëgg sa bopp si set la commencé il faut nga set pour bëgg sa bopp d' abord li ngay lekk mu set te sell la ak set nag du benn mun nga présenter lu set te du la fédération boulanger yi nekk ci diwaan Ndar Géej nag ñu ngi ñaan gouvernement bi. la mu wax mu daat koy respecté rawatina bii décret ñu mën ko topp ngir jëfee li njiitu réew mi xaatim est aussi mu mën a ànd ak décret bi li ñuy ñaan kay mooy vraiment décret bi nga xam ne bind nañ ko kese ñu bañ ko dugal ci tiroir yi rek mu nekk dem fa mbóodi doon nekk démb ak bërk démb parce que yàgg nañu fi ay signé ay décret yoo xam ne kenn du ko appliqué boutique yi nga xam ne dañuy laal eau laal poisson janax laal leen ak leen ñoo ngi bu baax doxalin bi ci njaayu mburu mi ak yenn ci pâtisserie yi nga xamante ni ñu ci Sénégal loolee lu mën a nekk la mooy xalaatu ñi nga xamante ni ñoom la ñu dajal ñoom nag ñu ngay ñaan nguur gi mu taxaw ci jërëjëf euh, Ousseynou euh, Diop euh, wàllu mburu mi nag foofe la ñu koy tëjee daal di wax ci leneen lu soxal amicale des administrateurs civils bu réew bu Sénégal ñoom ñoo ñooñee sax nag ñoom ñoo doon àddu ci wàllu administration ana naka la ñuy def ngir rek daal di gën a ñoŋal lu ni mel waaye tam askan wa nga xam ne rek ñoom ñoo ciy liggéey ku ci nekk mën se gis sa bopp daal nañuy tënk itam lépp lu soxal wàllu kaaraange ci dëkk yi nga xam ne rek ñoom ñoo wër tund Sénégal ki moom moo di Maguette seen moom moo jiitee boobule amical dañ koy teewlu euh, ci micro Abdourahmane daje bi nag li ko ni lekkool solo bi mooy ñu defar benn programme d'activité annuelle pour année 2020 bi tënku rek ci mébét bi amical bi am pour participer ci effort bi nga xam ne autorités yi ñoo ngi koy def pour que suñu administration bi gën a moderne waaye tamit bokk na ci li nga xam ne discuté nañ ko nu ñuy fexee ba suñuy membre ñu bokk ci amicale bi seen nekkin ak seen dundin yokku tànn nañ ñaari thème yu am solo yoo xam ne yi administrateur civil yi dañ koy engagé wu pour accompagner ci gouvernement bi benn bi ci jiitu mooy def benn colloque kolog lañ bëgg organiser à Dakar benn kolog de haut niveau boo xam ne bii dañ cee bëgg xalaat wala boog dañ cee bëgg indi suma xalaat ci nan lañ war a gën a réformer administration bi nan lañ ko gën a moderniser pour que véritablement population yi nga xam ne ak ñoo ñoo tax ñu jóg di liggéey ñu mën a yëg seen bopp gën a yëg seen bopp ci développement wu Sénégal. waaye beneen atelier bi tamit dañ ko bëgg a def mu nekk atelier sous régional maanaam Sénégal ak yeneen réew bokk ci. ci atelier boobu dañ cee bëgg a waxtaanee lépp lu jëm ci wàllu sécurité loolu nag li tax ñu tànn ko deuxième thème boobu mooy xam ngeen ne suñuy membres yi nga xam ne ay gouverneur lañ ak i préfet ki sous lu jëm ci maintien de l'ordre public ak lu wàllu sécurité dañ ci am ay mission yu ñu war a dox jërëjëf euh, Abdourahmane euh, Diallo ñu di ko jaajëfal bu baax a baax ñu wax ne coow foofee nga xam ne moom moo di ca fawoon ñi nga xam ne nag euh, ñoom ñoo di askan wa fa yeewoo seen digganteeg ki nga xam ne rek moom moo di maire ba mu mel ni neexul dara ndax dañ koy joxoñ baaraamu tuuma ne rek dafa luubal ay xaalis boo xamante ne daal nañ koy jagleel lépp lu soxal wàllu njàng mi ak njàngale mi ak yeneen yoo xamante nii rek war nañ ko foo def ngir rek askan wi mën ko jëfandikoo yooyu koppar nag buñ ko tënkee nag askan woowee mi ngi wax rek ne toll na ci lu tolloog fanweeri euh, milliards ba tax rek ñuy sàkku ñu daal di audit ki nga xam ne euh, moom moo di euh, maire bi dañ ciy déglu reportage bu Bakary Konté ak Xaali Jaame population yi nekk ci village bu Touba Mouride ak lu ko wër ñoom nag nekk ci commune bu Fawoun dañu mer loolu seen maire di ko tuumal ni ne. maire bi wax na ne tabax na salle de classe si juróomi million ak juróomi téeméeri junne. ak ñeent fukki junne fan la ko def ci commune bi ñaareel bi mu ne def na construction marché ak équipement marché boo xam ne nii dafa tabax na ko ak équipement am millions mu war a débloquer 5 millions jox ko jeunesse bi mu jël 5 millions yi na ko dindiix maire bu commune bu Faoun moom nag mu ne ay responsable yi nekk ci opposition ñuy joxe ay information yoo xamante ne dara du si dëgg. tey nag ak parti yoo xam ne nii nag ay bokk gis-gis yooyu ay sonko yooyu. ay yeneen parti yoo xam ne nii pire kaw na naka ak naka man yooyu concerné ma man bu ma ñëwee am naa dix neuf classes. daaw jóge naa huit moulins ren am naa vingt. lu jëmee si marché hebdomadaire bu Touba Mouride maanaam luuma bu Touba murit population ñoom nag ñuy tuumal muwer bi. tigre itam mu ngi koy photocopier Touba Mouride gisatut boppam waaye bu dee tuba Mouride rek commune bu Faxoon la wax Touba Mouride amul tey maire ray na ko mu ngi doon bëgg a jóg ray na ko ray ray na ko ñoo lànk na. maire bi nag di leeral di ne xaalis boobu PNDL moo ko war a financé. PNDL moo amoon 9 millions joxe 9 million commune bi def si appui 1 million ça fait 10 millions. semaine bi la directeur ARD bu Sédhiou moo ñu woone tendel bi génn na du fawul rek population yi di ne am na sax ay extrait de naissance yoo xamante ne ay gambien lañ koy jox loolu nag pour mu mun a préparer élection locale yi muy sàcc suñu audience foraine yi nga xam ne suñu xale yi ñoo ko moom mu ngi koy jël di ko yët ay doomi gambien nan dem laaj président tribunal bi est ce que mos naa fa indi photocopie yaay ak papa boo xam ne ne gambien jamais mosut am ku indi na photocopie carte d'identité yaayam ak papam sénégalais la bugg doomam bi nekk am nekk sénégalais am naa plein droit defal ko extrait naissance bu sénégalais. Touba Mouride di ne ñoom nag ñu bëgg ñi daal di auditer mairie bi. dañoo bëgg a audit depuis su fekkente ne am nañ preuve yu leer na ñëw. population yi di ne ñoom nag bëgg nañu autorité yi daal di jóg ci nu mu gën a gaawee daal di leeral mbir mi. ñu wax euh, ci beneen maire boo xamante ni rek euh, mu ngi doon euh, jano ak rek askan wa nga yeewoo ca diwaan bu Nioro ginnaaw nag bu mu defee lu tollook juróomi at ci boppu maire bi jokk na ak ñi nga xam ne rek ñoom ñoo di askan wi daal nañuy wax ci rek lu soxal wàllu dëkk woowee ba tax rek askan wi di sàkku ci moom muy def lu ni mel nag ci bépp gox boo xamante ni rek nekk na moo di Ibrahima Ibrahima Diame moo ci ànd ak Fally na nag ñu koy gis fii ci Sénégal maire bu nangoo janook askanam ñu koy laaj ni mu yore commune am maire Nioro di Abdoulaye Ba moom moo ko def publiquement mu jàkkaarloog askanam kenn ku nekk di laaj li ko soxal ci ni muy saytu dëkk bi. boo fi nee juróomi at yoon mooy da ñëwaat ci nit ñi ne man lii ak lii laa fi def lii ak lii laay séntu lii ak lii moo des. tey dañ ñëw def genre bilan ndax dañ am benn convention forum civil waa forum civil ñu ko sookee nag liñ ci jublu moo di permettre képp ku nekk ci askan wi nga mën a janook maire bi directement wax ko di nga ko bëgg a wax. pour askan wi mën a janoo directement de vive voix ñu waxtaan ak seen maire wax seen xalaat ci mairie bi. laaj gi ñu ko bëgg laaj yëpp ñu laaj ko ko loolu nag xam naa bëriwul ci commune yi koy def. laaj yi nag ñu ngi doon fële fu ne bàyyi ñu dara muy lu jëm ci wàllu suuf si wàllu éclairage public assainissement ak sécurité donte nag askan wi ñu bëri ci ñoom rafetlu nañ bu baax a baax ni maire bi yore dëkk bi. ñu rafetlu maire li mu li mu def tey ñëw jàkkaarlook askanam ñu mën koo laaj ci question yëpp mu tontu ci loolu dañ koy rafetlu bu baax te vraiment man mi nga xam ne ñëwoon naa jógee ci sama gox mu am ay préoccupations yoo xam ne dañ ko doon tontoo biñ ñëwee tamit permettre na ma man ma yeggee ko ko te li ma tontu tamit wax dëgg yàlla dal na xel. waa forum civil nag yi initié ndaje bi di ñaan rek lu mel ni li law ci commune Sénégal yëpp maire bu nekk kon ci biir réew mi nangoo di janook askanam ñu koy laaj di mu yore dëkk bi ndax ci démocratie la bokk te ñoom ñoo ko wóolu teg ko ci boppu commune bi. jërëjëf euh, Ibrahima Diame ñu di ko jaajëfal bu baax a baax ñu wax euh, ci leneen jeune entrepreneur et leader euh, du Sénégal nag ñoom nag ñoom ñoo bëgg coppi xar kanam bu réew bu Sénégal naka noonu itam ñuy xam ne rek ne dinañ amal ab set loole ñu ngi ko fësal ni ki démb ci ndaje bu doon amal di final bu art oratoire nga xam ne rek doon na am foofee nga xam ne moom moo di ca théâtre national Daniel Sorano naka noonu itam ñuy rek ci ñi nga xam ne ñoom ñoo di. ndaw ñi ñuy euh, sóobu bu baax a baax ci li nga xam ne moom moo di wàllu entrepreneuriat naka noonu itam ñuy ut li nga xam ne moom moo di ay financement ngir rek mën a demal seen bopp ñu teelu ci reportage bu Habib Faye Ababacar Camara citoyenneté ak civisme ci bépp fànn mbootaay bi ngànk ndaw entrepreneur yi ak leader yu Sénégal ñoom ñi ne noppi nañ ngir mën a setal réew mi ba mu set wecc waaye loolee rek ñoo ngi koy doore ca dëkk kaw yi que ni ñun li ñuy woote muy citoyenneté activisme gëm nañ ko citoyenneté activisme nag concerne le politicien bi concerne le professeur concerne le docteur mais ça concerne l' de la population bi nga xam ne nii ñoom ñoo nekk muy dëkkuwaay yi te fi ñu gën a visé mooy village yi gën a reculé Sénégal foofu la ñuy tàmbalee suñu liggéey avant que ñuy revenir fi nga xam ne nii tey jii defar ko dina yomb incha allah. am xëyub ndaw doon na loo xamante nit metti na lool fii ci mim réew ñoom ñii ne faaw rek. seen ñoñ yi ñu dem wuti li nga xam ne moo di financement ngir ñu mën a sanc seen entreprise yi bopp. bépp jeune bu ci am financement li laay war a suuli nga fexe nga fexe créer ay emploi ndax loolu mooy njëriñ bi du jeune bi yow kese nga jëriñu mais jeune bi nga jëriñu ba pare jëriñ say morom jëriñ fi nga dëkk jëriñ sa gox mais jëriñ aussi say waajur. yenn saa yi nit dee bëgg ñëw investir Sénégal dégg wax ju ñaaw parce que xale yi mer nañu parce que xale yi xamuñu fuñ jëm ñu ne nañu yàq. lenn rek moo ko mën a lijjanti mooy ñi nga xam ne yàlla may leen alal Sénégal may leen xam-xam muy xam-xam bu tubaab muy xam-xam bu bu bu bu bu mënta doon muy doole muy kattan ñu dellusi dimbali xale yi. mouvement bii di action ñoom ne noppi nañ rek ngir gën a mën a jàppale ndaw ñi ci yoon googee ñu tëral. civique mi ci mag ñi rek la commencé xale yi loolu la ñu ci loolu la ñu màgg parce que dañoo ñëw fekk ci loolu te li fi li bi gën a doy waar mooy am alal bu ko boo dimbali doomu rafetal euh, bale sa koñ rafet na am na solo mais civisme bu gën am solo mooy alal ji nga am nga jël jox ko xale yi ñu liggéey. ana ban modèle leadership pour ndaw ñi. loolee doon na loo xamante nit waxtaanee nañu ko ñoom ñi di fukk ci ay finalistes yoo xam ne bokkoon nañu ci jongante art oratoire gi nga xam ne AGELS amaloon na ko jërëjëf euh, Habib fay euh, ñu di ko jaajëfal bu baax a baax ñu wax ci leneen lu soxal wàllu euh, tàggat yaram dañuy dem ba ca fa nga xam ne rek moom moo di ca Kaolack ñi nga xam ne ñoom ñoo di ndaw ya fa yeewoo te rek yëngu ci wàllu tàggat yaram ñoom sax ñooy sàkku ci seen maire mu dikk ak ñoom ci ab stade municipal loole ñu ngi ko doon wax ci ab final bu coupe de la maire ki nga xam ne nag moom moo yor gox ba di Mariama Sarr daal leen xamal ne loole du yàgg dara. nañ ko amal ngir rek euh, askan wi mën ko jëfandikoo dañ ci teewlu reportage bu Ibrahima Diame ak Faly Gueye Super Étoile bu Ndargu Ndaw Kocc Barma bu Léona Centre di jongante coupe du maire Mariama Sarr mu doon nag jongante bu nga xamante ne joué nañ ko ci jàmm ak salaam ça seetaan xale yile ñuy fubal muy gént nag ay Sadio ci biir terrain bi. sportif yi nag fàttewuñ ko laaj stade municipal bu kaw Kaolack bi nga xam ne diggoon na leen ko te mu tegoon xeer wu njëkk wa finale coupe du maire Mariama Sarr bile ñoo ko juree nag guddi ci stade Lamine Gueye éclairage bi nag descendi woon na ci terrain bu nga xam ne dañ ko surexploité waral kon sportif yi jàpp ne jot na ñu am beneen stade. jot nañu am beneen stade Ibrahima jàmmee ñu amal ab porox ndollu ci li nga xam ne rek moom moo di revue de presse ñu ànd ci ak Mamadou Mouhamed Ndiaye. jirë ngeen jëf yamba jaa ngi ne gàññ ci l'observateur coowal yamba ngi ne jasar ci yéene kay page huit ba neuf bu journal bi tey ji waxi yamba moo fa nekk journal bi nañu droit de l'homme si bii di Seydi Gassama directeur exécutif bu Amnesty Sénégal moo jibal xalaatum ñu daganal tuxum yamba ci réew mi xalaat bu ni fan la ko teg ak tey ji bu ñu doxoon ba yegg ca nan la ñu koy doxalee Seydi Gassama mi ngi koy leeral ci journal bi yéene kay bi tegal ñu ci ne moom Seydi Gassama na dafa gis ne li feesal kasoy réew mi ñi jàppe yamba bokk moom Seydi Gassama tey ji bu kilifay réew mi wuy ji woon ci xalaatam boobe Sénégal mooy doon kon ñetteelu réew bi daganal tuxum yàmba ci Afrique ne Zimbabwe moo ko jiite losité topp ci laaj bi di ndax Sénégal moo leen di ñetteel yéenekaay bi nañu waaye daganal tuxum yàmba ci réew mi di Sénégal du yomb ndax nit yi diine yi ñu dégg ñu wax ci nee na ñu mukk du fi amee médecin yeeg psychologue yi ñu ci dégg ñoom it seenum xel dalu ci Mame Matar Gueye bu ONG Jamra ne waa L'Observateur Seydi Gassama sama waay la waaye xalaatam bi moom rikk waaye na ko delloo fa mu ko jële woon du xalaatu nit du waxi nit Mame Matar Gueye ne bu ñu fàttali ko def na ñaari at ci ginnaaw Cheikh Ahmed Tidiane Diop benn doomam bu góor bu tux yàmba ba yàqu moo ko tëroon ne ko deqet ren ji bëccëgu ndara kàmm vox populi nañu Seydi Gassama mi wax waxi daganal yàmba ci réew mi waa ONC Jamra yàkk nañu ko musiba ak mbelengaan vox mi laaj ci xëta mu njëkk ndax dañoo war a daganal tuxum yàmba ci réew mi mi ngi ñuy yeggee jëf ju ñaaw ju amati ci réew mi amee ca saare yoo ba jaawoo ga ca Kolda benn femme la ñu faray dañu ko ren di deqet jël bopp ba yóbbu Kumba Kan di femme bi ñu fi doon jaaba jonge fan yépp ci réew mi te ñu doon wax naan nit ñoo ko kidnappé ci kër moom Kumba Kan ginnaaw bi mu feeñee bañ l'observateur fexe na ba wax loo ko li xewoon ak ni mu ko dunde musiba mi ko doon yoot te mu mucc ci lépp wax na ko journaliste l'observateur yi yéen a kaay bi dañu waaye moom it loolee mu ne dañu ko kidnappé woon tey na xel yu bari rawatina policiers yi ca polisub Touba ne ba mu feeñee ñu yóbbu ko fa di ko enquête dafa wax ci enquête ba ay mbir yoo xam ne dafa tey xelu enquête yi bi ci njëkk moo di bi ñu xoolee ay bagaasam moom Kumba Kan dañ cee gis ñaari Bakane yor nab numéro expresso libération nañu bi ñu kondee Ndakaaru doon ko déglu ca section recherche fa yi gën a lëndëmee fa la wax ji gën a ndax dane dox na pendant te bi ñu xoolee daal yeeg tànk yi dara pëndu ci suur soi nañu ci jamono ji ñu lijjantee mbiri Kumba am na beneen xale bu jigéen bu ñu naan Sara Kakoro dip élève terminal bu doon jàngee ca collège Saldia moom it dafa réer ba ñu ko gëjee gis ak léegi daanaka mat na weer ñaar yu ñoo lànk ñoo bañ yi ñu tegoon loxo keroog samedi ñu ràññee ca caat ak fuumalaat journal bi nee nañu ba ñoo nga police ñu tëye cib garde à jàpp gi ñu leen jàpp journal laas nañu moo waral seen natango yi ci collectif ñoo lànk ñoo bañ ne duñu seral danañu taral xeex bi lu mu laaj dinañ ko ko jox Alassane Seck secrétaire exécutif Ligue sénégalaise des droits de l'homme ci journal bi dañu leen yàpp rek waaye li leen jàppee amul fenn privatisation faux yi ay raykati nit la yuñ dul dégg président Macky moo ko wax wax jàngi ci xët mu njëkk soleil national mi ngi ko ndaje mu ñu doon def ca Togo jëme woon ko ci faux médicaments yi soleil national nañu ca ndaje moomee amee ca Lomé ga ca Togo fa la ñu ne faux médicaments yi at mu yàlla sàkk dina faat ci àdduna bi téeméeri junniy xale ak ñaar fukk ñaar fukki ka ak juróom-benn yu feebaru rougeole grand place ne nañu nemmeeku laal na leen nañu laal lamb ji ak sunu lamb mi ñu wax ne combat revanche bi ñu bëgg a tëgg mu di combat bombardier ak Eumeu Sène léegi xam nañu ñaari mbër yi ku ca nekk ñaata lañ lay fay Eumeu Sène 60 millions la ñu koy fay bombardier 40 millions. jërëjëf Mamadou euh, Mouhamed Ndiaye ci revue de presse boobee yéen itam ñu leen di wax jërëjëf mbokk yi nga xam ne yéen a toogoon boobaak léegi di topp xibaar yi ci télévision Futur Média rédaction bi di leen jox ak di daje bu 19h30 jotee ci kàllaamay kocc 20h ci kàllaamay nasara. loolee itam ñu leen di ñaanal jàmm di leen bàyyi ak programme yu télévision Futurs Médias